ñu bàyyi leen xel bu baax ndax soxla nañ leen tey lañ leen gën a soxla ñoom ñooy ñoom ñoom ñu ngi leen di bàyyi xel ñun di ci ne leer naa yooyu nga xam ne 2012 ba président soxla réew mi ñoom ñoo taxawoon futteeku ànd ak moom ba jox ko nañ xam ne tey lañ leen gën a soxla ñu ngi leen di tàll loxo bu baax waaye di bàyyiloo xel parti bi nga xam ne ñooy waa APR ci ne saa bu jëmee ci lu jëm toll nii ŋaayoo bi ak xiroo bi dafay bëri lool te loolu du mayee ndam nañ ko bàyyi xel nañ bàyyi xelit ne am na ñoo xam ne dañoo bokk ci parti bi duñu leen gis ñun maanaam dëkkuñ nekkuñ ci dëkk bi fi lañ dëkk juddoo fi màgge fi waaye nekkuñ fi soit ñu nekk Dakar wala ñu ne faneen ñu xam ne ñoom it saa bu élection jotee dañuy bàyyi seen te yitte dugg wàcc ci terrain bi ñëw di ànd ak ñoom fiiraa nga day dugg toujours ci seen suñu diggante ak ñoom te ñoom bari na luy sotti loo xam ne ñoo koy sotti kon ñoom it ñu sóoraal leen bàyyi leen xel